أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ولانا محمد wa آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokk julli di ka gannaaw bon santaate suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli ci jaam ba di sang ci ñëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñaan réew mii di Sénégal yàlla suñu borom dolli fi def jàmm jiital ci ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi ñoo xam macha nga xam ni stabilité bi am ci yëpp ci seen ñaan la ci seen seen génnul ci seen loxo ci li nu mën a wax macha allah di ñaan suñu borom moom mi dara tawul yàlla suñu borom dolli fi def jàmm ñoo ngi Talibe TV ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yeneen a ñuy suivre à travers sur toutes nos différentes plateformes tey seen émission pencum daara pencum daara nag di saa yu macha allah penc mi. ak gis-gisu daara tey nag macha allah yaakaar naa li naan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tey moom la am ci émission bi muy oustaz Moussa Fall mu ITV macha allah di oustaz boo xam ni wax fa dëgg yàlla ni mu mënee ci alquran noonu la mënee ci dans la vie quotidienne noonu la mënee ci école bi macha allah yàlla buñ ko catu oustaz ngi lay ziara xam naa du ma ci sori di ngeen ci xam dara oustaz ziar naa. ma lay delloo ziar tabarakallahu di ziar mboolem ngeen ko seqal ci wàllu Talibe TV. Euh, di ziar techniciens yi di ziar borom xam-xam yi ñuy teewlu ak sénégalais yi internet yi nga xamante ne saa yu ngeen génne vidéo ñu teewlu ko bàyyi ko xel di ñaan yàlla fépp fu mu daan jaar ba yiw ba yëwan yal na ko yàlla jaarale foofu tey incha allah ñu ngi bég ci dalal bi ngeen ñu dalal tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla yëkkati ba kaddu yi ñuy yëkkati euh, dëppoog ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala yàlla bu ñu seytaane dab te yàlla buñ ci gis suñu bopp incha allah macha allah imam tey na ci benn xew-xew goo xam ni am na fi dal ci diggante ñaari sénégalais kenn ki tuumaal moroom mi nii def dan danoo am doom léegi ku jigéen ki nangu na pour xëy na bañ a offensé kenn moo bañ a ku jigéen ki moom nee na moo ku góor ki danoo am doom ku góor ki bañ na tey est-ce que ku jigéen ni moo mag moom danoo am doom l'islam dana ci sukkandiku ba ni waaw wala day bañ catégorie waaw question la bu yàgg jaaxal borom xam-xam yi ñu indi ci nag euh, réponse yu bari wallu doom euh, dañuy wax ne bëgg-bëgg suñu borom la ndax nit ànd naak nit ci yoon bi moo xam seex la góor jigéen jigéen ak góor wala jigéen kese wala góor kese wala sax duma joxe dara lépp ci def def suñu borom subhanahu wa taala la su àggee ci niveau wu doom euh, dafa am ulama sharia lu ñu wax lenn li àtte yuñ ci njëkk yu njëkk ñi la lenn li ci fatwa yu mujj yi la suñ ne atte njëkk ya nag mooy ñu sukkandiku ci ngir yi ku mel ni imam malik ku mel ni imam ahmad ibnu hanbal ku mel ni abu hanifa ku mel ni imam shafii nga xam ne ñoom ñoo toog ba benn siècle gis ne bu ñu seetaane diine ji dana xaw a jaxasoo ndax euh, islam politique dugg na ci ndax euh, ku fat fat xool histoire saydatuna aïcha ak euh, saydna alin di nga gis ne amon lu dox sen digënté ba kuñ wax Muawiya coalisé ak sayyidatuna aisha ñu xex ci sen bir wa ba sax borom xam-xam yi nan al imsak fi ma shajara baynahum ci teggin nañu nopi ci li doxon ci digënté sahaba yi ndax suñu suñuy way lañu mais walu khilaf khilafa bobu ci islam indi na jafe-jafe ba xex bi tuddé xexu sifin ci la shit génn muy ñoñ Ali ci la sunnite génn muy ñu àndoon ak saydatuna ci la ay xawaaris tamit génn ñi nga xam ne faruñu fii faruñu fële loolu di dox ba ñu commencé gis ne am na ñu commencé di politiquer islam di génne ay xadis naan xadis bi yonent bee ko waxoon te ba ñu waxee xadis bi dafay dëppoo ak seen principe bu parti ràcc jëmale seen kanam dégg ñu gis ne yooyu muy commencé di feeñ te ku nekk rek mun nga ñëw rek ne nangam la ñoom imam malik jug daal ne attention il faut que ñun ñu réorganiser waat charia bi ñu créé ay ngiir da ngiru Malik ngiru ñoo fa tudd léegi ci biir ngiir yi ñu recensé xadis yi ku mel ni euh, Bukhari ak Muslim ak Abu Dawud ñu def seen Abu Dawud def sunan euh, Bukhari ak Muslim lu ñu tuddee sax si xaax yi muy saxiixul Bukhari ak Muslim ñu commencé ci sélectionné xadis yi ñu yi ñu jàpp ne wér na à la suite bu ñu càmbaree ci wàllu ki wax xadis bi ki ko njëkk wax kam ko wax kam ko wax chaîne de transmission bi xool ñu ko wax ñan lañu ba ñu mujj ne xadis bi wér na moo tax nga gis borom xam-xam yi léeg-léeg di werante naan bii dafa daif ak bii wérul li ko indi mooy appréciation yi borom xam yi def ci xadis léegi nag ñoom imam Malik ci seen jamono xool nañu phénomène boobu ndax yàgg na am euh, ñu ne su dee ngiru Malik dañ ne jigéen bu ñëwee ne dañu ma ëmbal ne diw la bu ne diw la diw boobu. su taxawee ne du man su boobaa kenn du ne doomam la. waaw imam Malik nee na su ne du man ci wax ju njëkk première réponse diw la mu ne du man comme du moom doom bi kenn du ko ko askanale buñ ne moom la mu ne man la yar xale bi yiir ko téye ko comme njabootu boppam te mësul bañ ne doomam la su boobaa am na ci biir ngiru Malick ñu taxaw ne doom jooju dañ ko koy affecté sew sew la nag mais du ñëpp mm-hmm. li ko indi mooy dafa am benn xadis yonent bi alayhi salaam wax la al waladu lil firash mm-hmm. daal di ne eh, doom dañ koy sosee ci buumu sëy mm-hmm. li ko indi woon mooy danaan am ay guerre soldats di siif jigéen ñi bu guerre amoon dañ daan siif jigéen ñi rey góor ñi siif jigéen ñi bu ñu siifee jigéen ñi nag ñu jëlee ci ëmb ba neuf mois après bu doom yu juddoo euh, du ñu xam kuy seeni bàyyi dañu naan seen yaay leen jur loolu moo atte bi ñenn ñi wax ne ñi wax mooy ñi wax mooy catégorie boobu di 25 pour wala 30 pour cent ci ngiru Malik ñu wax ne bu ko bàyyi ba nangoo yar ko mooy bàyyam dañu ne c'est parce que condition bi yonent bi alayhi salaam doon waxee mooy condition boobu nga xam ne xale bi judd na te gisuñu baayam ñu teel a rafetal daal na yaayam a ko jur comme yaayam a ko jur nag duñ ko askanalee baay dañ koy askanalee yaay day doon yaayam day doon yaayam ndax wóor nañu ne yaayam a ko jur waaye nag baayam bu dee ñoom ne nañ bu dee baay bi wóor na ne mooy baayam te nangu na ko te yar na ko su boobaal droit bi ci yaay ji am la baay bi di faf am mooy ñu wax loolu day nag doom normal am na ñu ko wax parce que xam-xam dafa yaatu xam nga Sénégal li koy xaw a jaxase tuuti mooy jànge ci benn école jàngee ci benn téere jàpp ne ku jàngul loolu xamuloo dara <laughs> loolu mooy sew sew bi <laughs> léegi nag foofu am na ñu ko wax am ñu ne déedéet xadis bi leer na doom ci buumu sëy bu judduwul ci buumu sëy du doom même bu nangu amee am na ñu wax loolu parce que ñoom xadis bi noonu lañ ko interprété interprétation nag munta ñàkk ci diine léegi nag loolu mooy fa loolu mooy atte njëkk ya bi ñu demee dem ba jamono yu mujj yi dañu tuddee fatwa fatwa boo fatwa boo déggee mooy mufti baat bi ci mufti la jóge wala ci ifta mufti mooy ki jàng téere yi mokkal leen jamul ci benn téere waaye mu jàng téere yu bari jàng riwaayaat yu bari jàng ci ay ngiir yu bari toog ci jamono am question bu bees bu ñëw la question bi ay éléments yu ci jamono bi ci tontu wala jamono bi ci imam wax éléments yu existé wul won ah mufti attention nañu wo yenen expert ñu dajé ñu laaj leen ñom ñu wax ci wax ñu ci ci islam indi ci ay résolution indi ci ay sentence fatwa par exemple test ADN xam amul léegi fatwa indi nañ test eh, réponse yu bees yaa ko jur wala juróo buñ def test ADN gis ne 95% vingt quinze pour cent li révélé mooy yaay bayam dañu lay wane la yaay bayam forcé la forcé la parce que jamono bee amuñu moyen pour vérifier ko fatwa mujj yi. sama sama baa ngi noonu. <laughs> kon l'islam day te li tax muy évoluer mooy da ngay gis élément yu bees yoo xam ne gisoo ko woon démb ak barki démb. tay jini suñu fekke ben oustaz mu tok ñu ne ko lu islam wax ci whatsapp xam nga mënul dem ci téere ñëkke da ko fekk xalatu ko do dem aaya bu wax ci whatsapp wala hadith bu wax ci whatsapp waye da ngay dem xol ki administré mu wax la ci ay xam-xam ne ah whatsapp kat am na transfert audio nga ne lol day dugg ci tajassus te wala tajassus day haram amna espionnage boobu baaxul waaye am na groupe yoo xam ne dañ fay waxtaane diine ah boobu baax na am na koo xamante ne mbokkam bi ko réeroon ay at mën na dajeek moom ñuy dajawaat ñuy waxtaan ah loolu baax na kon bu fekkee day jokk mbokk baax na bu dee day jàngale diine baax na bu dee day defar baax na waaye bu dee day yàq day xaram loolu mooy fatwa bi donc ku nekk sa jubluwaay ku nekk sa jubluwaay nga ciy seet donc borom xam-xami jamono bii ñoo war a namm seen xam-xam méngale xam-xamu diine jamono Set nak buñu waxtane ba jeexal lan la ci islam wara mëna wax ndax mé nañ mengal lenn li ak lenn ci dund yonent bi alayhi salatu wassalam aduna rek day dox gis nañ fi xol yu ñuy greffé gis nañ fi rein yu ñuy greffé gis nañ fi euh yo ne demb ak barki dem xamuñu ko won té tay fokk ñu wax ci ndax sunu islam daf ci wara am réponse lool moy indi fatwa fatwa nag kay def mufti bokul, ak kat bi kese mufti mooy mel ni pharmacien bi ki nekk ci usine bi jël composante ki nekk ci laboratoire bi jël composante garab yi ba def ko ay comprimé ci misaal def ko ci tablette bind benn posologie ne prise bi nii la suba ak ngoon kooku mooy mufti bi jàngalekat bi mooy pharmacien bi nga xam ne moom ngay dem docteur bi bindal la garab bi nga dem mu jaay la ko nga jël ko yow mi nga xam ne nag yaay bu sakku xam-xam mm. yaay ki jënd garab bi diko jëriñu mm. légui nak buñu jaawale ñetti musubam <laughs> waaw dañ ci gis ko xamne ne niveau wu jënd garab la tollu mu bëgg jël niveau fatwa lool problem problème bi Sénégal amna fi di nga gis ko xamne day atte da ngay tit parce que da ngay xamne ne limi letena wax xamu les tenants et les aboutissants mm. te charia lo gis gennul juróom yi muy li war Eh, lit xaraam ñoom ñaar ngay méngale ni ci seen diggante ñetti yëf fi li war li ñu sopp daf ko jege li xaraam li ñu sib daf ko jege ci seen diggante nag li daga a ngi ci mu nekk ci digg bi donc boo defee agencement bi wujub lay doon mustahab eh, mubaax makruh ak mahrum ba demee ci xawaa charia ñi lay jàngal usul dañ leen naan al wujubu maa yusaabu failuhu wa yuaqabu tarikuhu li war mooy boo ko defee am tuyaaba boo ko bàyyi am bakkaar contraire euh, li war mooy li xaram ñu ne al mahrumu maa yusaabu tarikuhu wa yuaqabu failuhu mooy loo xam ne ku ko def ñu bindal la bakkaar ku ko bàyyi te yàlla tax ñu bindal la tuyaaba indi nag makruh lu ñu sib boo ci yàggee mën na la yóbbu ci lu xaram indi la lu ñu sopp bëgg nañ nga di ko def waaye boo ci yàggee mu yóbbu la ci li nga xam ne dafa war daal na al mu baax nag mooy acte bi nga xamante ne dagan naa def mm. wutoo ci jaamu yàlla mais mënoo ko bañ a def mm. par exemple xëy sol sa yére ne la sol yére kat eh, muur say awra ma moo la war waaye comme awra yi xas na ba muur nag nga ne xaar ma style ko mm. sol ko mu gën a méngoo ak jamono su booba dégg mu baax waaw <laughs> day nekk mu baax day naan lii kat eh, dagan naa def su ko defee yooyu mooy atte acte bo meuna gis day dugg ci juroom yoy li fi nek nak moy xam ak ñak ko xam legi nak ci walu atté fatwa yi ñom indi nañ yu bees te ñu hadis, wat ci yeneen hadith eh, euh ku melni eh, Yusuf al-Qaradawi yal na ko yàlla yaram fan yi li fi nekkon jangale kat bu mag ci walu fatwa dafa xol xol xol dal dina attention bu ñu ko ci histoire Ibnu Jurayj dafa musa, nek nekk ci benn eh, xur di fa jaamu yàlla di isolé wu di fa jaamu yàlla ba bis jot muy naafi la yaay ji soxla ko yaay ji sëpp ne ko juree ji dama la soxla xelam nekk ci naafila bi ak woo bi ko yaay ji woo ndax ji woo ju yaay ji woo farata la naafila bi mu julli gi muy julli jàkkaloog yàlla jàppale ne loolu mënu koo dagg mu continuer yaay ji woo ko ñetti yoon ko yaay ji ne ko yàlla na la yàlla sa comme sa naafila yooyu nga nekk yàlla na la yàlla wan sama sama sama gëdd ci yow yaay ji xaw ko rëbb faf yàlloo yàlla mu tombeek benn jigéen bi nga xam ne moo gën a dëng ci pénc mi daal ne man seen naafilakat bii bëgg naa ko fexeel may leen ma ma fexeel ko comme dafay wéet mu fekk ko ca wéetaay ba ñëw rek bëgg koo sàkku juree ji faalawu ko continuer def jaamu yàlla am mu dellu siwaat une deuxième fois ànd dafa ak beneen woyu bu góor njaaloo ci kanamam waaye juree ju xoolu ko ci àllusi si njaaloo boobu mu jële ci ëmb xëy rek taxaw ci digg penc mi ne dama ëmb te ju ji la gars yi na ndekete waa ji doon jaay xam-xam doon jaay njub doon jaay naafi la ndekete saay-saay bu bon la dafa construire benn benn tata bu mu daan làqatu dafa jaamu yàlla gars yi dem toj ko génne ko ci penc mi di ko xët di ko dóor naan ko ndekete yow kenn yéesu la yàlloo yàlla ci biir wax ji waa ji wayu ba wayu ba nga xam ne moo séqoon ak ndaw si yëkkati loxo ne maa ko jur de ba mu ne maa ko jur ñëpp jël xale bi nangul ko jur gim ko jur ndax moom moo taxaw moom ko góor ki ne man maa ko jur léegi pour régle problème am gaa ñi jéggalu ko ne dañ koy construiratal euh, bâtiment bi waaw mais bi yoon dañ koy def en or mun leen déedéet delloo nañ ko na mu meloon rek te bàyyiwaat mooy sama jaamu yàlla léegi nag euh, Yusuf al-Qaradawi ci ustaar boobu la sukkandiku ne comme waa ji dafa taxaw ne maa ko jur comme dafa ne maa jur ñëpp sukkandiku ci waxu maako jur bi ne ko kon yow la kon sa dooma jëlal yar te boo dee mu donn la mu ne kon ku taxaw ne maa jur dañ koy dugal ci cadre kii sama doom la moom Yusuf al-Qaradawi loolu la ci indi am na nag ñeneen ñu indi yeneen xalaat yu wuute mais Yusuf al-Qaradawi loolu la ci indi te jamonoy Seydina Omar gis nañu mu doon ci mu ci doon atte ci façon yu wuute léegi-léegi mu ne du sa doom léegi mu ne sa doom la so dom parce que leerul so dom la ndax leer na ndax amna na bo xamne boko ne jak ci beut xol bay bi xol ko mako ne yalla ko <laughs> mandu la <laughs> jeune jeune du fan jeune du fan daf melni ci problème bi euh, ma nit ñi signaler nan signaler nan <laughs> wa parce que di nga bañ mais ku xol xale bi xol bay bi ne ah attention li nak xam mandu ci ndax li dret la li ñu tuddé li tubab di wax marque déposée xam nga marque déposée <laughs> léeg-léeg mu am ci xale kon nag moom tamit Seydina Omar daan na xool xale góor buy tappale naan di wax weex mu xool xale bi xool la ne la eh jëlal sa bu ma fontoo kii yaa ko jur moo tax Seydina Omar daan na ci att att yu wuute moo tax ba tey eh, consensus bu leer maanaam réponse bu leer boo xam ne dañ naan lii kese la amu ci kii indi na lii kii indi na lii te ku ci nekk mën naa la wax fu mu teg waxam ñii dañoo interpréter xadis bi eh, ci côté bu général ñu interprété ko ci côté bu spécifique génne ci ay sew sew ne bu dee lii ak lii ak lii la nii lañ koy jàppee duñ ko jàppee ne la loolu mooy xam-xam nag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 yeah.